ñi nga xam ne ñëpp dañuy jottali ay xibaar ak fu ñu mën a nekk lu ñuy jottali lu nekk ñu fexe ba segg ko ba mu set wicc ba nga xam ne jàmm ne béy rek lay jur ci réew mi jural ko waa réew mi te kenn ku nekkit bu ko wóoree ne su duggee ci biirum néeg euh, kenn nekku fa moom ku muy gis mu jël téléphone am walla waxukaayam wax lu ko neex ku ko neexee na xam ne yàllaa yàllaa ko fa ñaareel te ëllëg dana ko ne lañ ci digg nit ñëpp gis ko ñëpp xam ko yoma tubla te it ginnaaw lu fi waay wax ku ne fu ne mën na caa jot nañ xam ne yàlla leen dàq denc ay wax moo leen dàq denc yéene nañ rafetaatal yéene yi te yéenente jàmm te kenn ku nekk di wax ci moroomam jàmm di ko yéene jàmm te di ko dox fu ko dégg wutali ko fu mu dégg leneen nit mu fas fa yéene yóbbu jàmm kàddu yooyu la sëriñ bu waxoon ne nañ leen ko jottali yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp te yàlla bu julli gi doon suñu mujjug julli te nawet boobu it lu ndox mi bari bari lu suuf si tooy tooy yàlla bu doon bàqu kenn si noonu ak ñi nga xam ñëpp ak ñi nga xamul ñëpp kullu aam wa antum bi xeyr wassalaamu aleykum wa rahmatullah